rapport bi comme ni muy wax mais comme je mais li may li ma li may wax si loolu pour Sénégal déggatoo cinquante mille yi may war a comprendre parce que yéen ñi di wax ñu si bëri ci ñun ak Sénégalais yi ñuy déglu am na ñoo xam ne comme ni may wax tey l'opposition de d'aujourd'hui c'est le pouvoir de demain ces gens-là avant ñuy ñëw c'est plus vous dans le jugement dans les valeurs ça veut DAGE donc un DAGE c'est finance technique mais invité wuñ ma mais en tant que DAGE damay ñëw wax leen lan DAGE non je suis désolé mais invité wuñ ma en tant que mais je suis DAGE mais mais bu doon loolu la xam nga li mu bëgg a xam soit da ngay oo un spécialiste de la cour des comptes mais man rapport bu cour des voté contre def moi je suis très légaliste fonctionnaire la ñu formé ma fa ñu formé magistrat yi ma am respect si ñoom trop am respect si yéen journalistes mm. parce que la plupart de mes amis sont journalistes mm. là c'est une digression pour me faire pardonner si j'ai mal parlé voilà non mais non voilà mais li ma doon wax dans un esprit de dire que voilà ainsi a pas de et quand je donne ces explications les rapports joxe nañ ko yéen def ngeen si exploitation mais man li ma jot ko mooy que gëm naa ne président de la république quand même mais ku tenir ci ay gestion bu baax sobre et vertueuse comme ni mu koy waxee même parfois on peut dire que y a des des des manquements y a des dérapages là on corrige mais mënu leen taxaw tey tere ñu quand même que ñu war a mun a mm-hmm. défendre aussi des gens yoo xam ne oh, on a des éléments de les défendre parce que tey waruma mun a toog fii ñu naan ma daas nga xam nga tey dañuy toog lu bëri moi mm-hmm. je vous donne su fekkee parle de l'indépendance des magistrats uh-huh. parce que leneen mais tey ñi war a indépendant si dëkk bi buñ buggee mu dox dañoo bëri uh-huh. parce que ab gestionnaire kenn ëpp ko kenn ëpp ko responsabilité ci dëkk bi ministre yi ñuy wax nii le ministre n'est pas ordonnateur il n'est pas même s'il est ordonnateur uh-huh. délégué il n'est pas gestionnaire c'est un gestionnaire ah, munoo dem benn question rapidement mu jeex 2012 ba léegi ku kan lañ fi jaar. mais waa mais waa ma xaar Ngom xaar. waa mais waa mais man am naa. waa léegi man aw ma. waa léegi man aw ma droit posé. waa léegi man man non gars yi. waa léegi am naa droit waa léegi xam nga. nee na bëri na waaw mais yoo xam ne tey si seen i. dàq nañ mun naa jëlaat non wax nga ci mais sur le Coran mais qui pose question. dama ne j'ai vu des ministres. ñu wàcc à la base des rapports. mais Birima Birima est-ce que mënu ma wax dara. je l'ai vu moi. mais su amee on applaudit. wax am na. mais non non te je peux mettre ma main sur le Coran Sénégal may déglu. mais mais xam nga lan moo grave. j'en sais que su lu may wax. xam nga Birima Birima jusqu'à preuve du contraire. d'âge ministère doo kii man question bi moom laa ko posé. pas yow yow li ngay waxee donc. question d'âge de. moom du daal mais non bàyyi ma ko. question c'est un euh, sénégalais. lambda mais malheureusement qui qui ne s'appelle pas Birima Ndiaye. Ah. oui non kooku tuddul Birima Ndiaye. voilà bon xam nga ki posé question. voilà mais moom du doon nekk naan jàpp nañ di jàpp nañ. ah non c'est pas bon. kaa jàpp ne dama ne. dama ne c'est dangereux pour lui. waaw mais non Birima Birima am question yoo xam ne je te Birima dafa am ay questions dafa am xam ne boo fa duggee. day ruube li ñuy wax ruube jaxase kii waaw ruube da ngay kii pour déstabiliser mais je reviens à la charte léegi ne réponds pas à cette question fii devant Télé Sénégal voilà ça ne euh, t'arrange pas doo ci répondre non waxal man boobu non dama ne dama ne xam nga wax ne dégguma ne la 2012 man sénégalais bi dama bëgg ni ah ou au moins pas wàcce nañu nit ah parce que loolu c'est plus grave nit nekkoon ministre luubal ñu wàcce la mu yem fa ana suñu xaalis da ko yóbbaale dama poser question bu set dama ne ñan lañ fi jàpp pour ñu am ci ay firnde parce que loolu base la pour wane ni mbir maa li ngay wax nii confirmation baa ngi nii loolu rek laa def. question bu simple. mais ministère de ministère de l'hydraulique hmm. ñëpp dégg nañ coow li fa amoon. pourtant c'est des gens qui sont avec nous le ministre était Mansour tous les gens impliqués yëg ngeen ko. combien de maires la ñu jàpp. ainsi de suite si ay la base boutique encore une fois les éléments sont là leneen li ma ci bëggoon yokk mooy aussi li dispositif bi président teg dafa am solo parce que tey ra of nag tey même bu ñuy wax ngom ngom ngom léegi beneen nga ni sa réponse bi convaincre na ma ah, ah, je t'ai pas posé la mais man question bi birima mais la dama ne dama ne que est-ce que. est-ce que comme da ngay wax comme yow ñaar ñaar ñett nga ne kaamil. léegi mën ngaa wàcc kaamil bi sa question bi. non man comme li la wax. yaa ma posé question ma non non non. léegi buuba bi ngay buuba wu ma de buuba buuba il est dans son man je suis. dama ci benn dool man est-ce que ma tontu daal comme moi je ma bàyyi ma di ngeen ma ma daaneel. ma bàyyi ma s'il te plaît tu as encore li ma bëggoon mooy euh, OFNAC même bu fekkee rapport yi. yaay ñu ngi def le président li mu wax si rapport OFNAC mooy dafa waroon am une procédure contradictoire loolu la bëri ma doon wax mm-hmm. absence de procédure contradictoire boobu moo tax procureur mënuloon agir. Mm-hmm. te tey nag teg na dispositif bu tax ku ñu nome gestionnaire. Mm-hmm. da ngay dem def décrément déclaration de patrimoine te tey non mais. obligation la non mais déglu dama lay wax rek xam nga li tax ma lay Ah, am na yoo def mais non non non mais non mais waxuma leen baax na baaxul mais dama lay wax li fa nekk mais laissez-moi terminer non non comme xanaa da nga fàtte ñi OFNAC dem di enquête xanaa da nga fàtte ñi OFNAC dem di enquête ñu jël sa non non OFNAC am na ñu jël sañ-sañ dàq enquêteurs yi comme xaj dàq leen. génn leen mais bien sûr am na fi mu ngi fi. c'était où sa waay xam nga nag yow xam nga ne am na leneen ma bëgg ma dugg si biir te ñu. waaye ma ne yaa ma gën a xam yaa ma gën a xam fan la yaa ma gën a xam fan la ak ñuy wax ak ñuy wax déclaration de patrimoine à l'entrée à la sortie. ñuy wax ñu def déclaration à l'entrée à la sortie. non mais moom a gën a xam. je pense waaye moom a gën a xam. yaa ko gën a xam. non yaa ko gën a xam. li Abdourahmane ñun defuñu rapport bi. waaw yow defuñu rapport bi. yaa ñu ko gën a xam. man asamaan man on me pose sur des questions. yaa ñu ko gën a xam. non non Abdoulaye dafa bëgg a dégg tur. non non jarul ko moo ko gën a xam. mais daf ko jar moo ko gën a xam. pour le coup non non non non ni ñu a accusé on a accusé. Ah, on a accusé. voilà le ministre Moustapha Diop. d'avoir renvoyé comme des malpropres les agents le de des comptes. Mmh. ça c'est pas clair. le seul cas. benn boobu rek doy na. dafa bëgg lu leer. ñaar dama lancer message sénégalais ñu déglu ma gis nga ni da koy xool ba xoolaat ko. Mm. fàttaliku leen 2012 bi ma gisaal lu fale Aminata Niane bu APIX. Mm. ministre conseiller. mais elle était prise pour 100 millions de francs par des organes de contrôle lui-même il est sorti pour dire ne me parlez pas de millions on parle de milliards c'est le président de la République dans ses relations avec ces organes de contrôle avec nos sous il faut Sénégal yi xam ne le président de la République il est très bien dans les tabacs il est très bien dans certaines politiques sociales nous ne sommes pas des nihilistes d'accord nañ am na fu baax mais jàpp leen ne de transparence impunité ci réew

birima li ñuy wax avant ngay pes sam gémmiñu sam xamal lu muy wëlis non non non avant muy wax ni il m'a dit tu travailles pour qui pourtant je voulais juste lui préciser sànq wax nga ni euh, euh, la commande du Sénégal moo sauvé Alstom un haut fonctionnaire qui a travaillé 30 ans quand même euh, ci administration bi il m'a di on a commandé 15 trains 15 trains pour le Sénégal au même moment Afrique du Sud 1000 trains la ñu commandé moo tax mu ne ñun mënuñu sax am usine montage fii exiger woon ko benn ma laaj la benn question non non non s'il te il dit que c'est plutôt les 1000 trains de ah, l'Afrique qui ont sauvé l'entreprise c'était juste non léegi léegi la sax lan moo tax teer bi demul pour qui je travaille s'il lu wax lu teer bi teer bi dawul ñooñu dinañ fi ñëwaat kan la ko war a wax ah? non la mën a wax gis-gis